kooku ñuy wax des témoin la est-ce que xam ngeen ni c'est mon tuteur ici à Dakar. Cheikh Issa Sall waaw. ce tuteur à Dakar ça veut dire. c'est mon tuteur mooy sa njaatige. mooy sama njaatige sama kilifa. ce kilifa bama ma bac à Mbour ñun ñaar on est des parents on est apparentés par alliance bama ma bac à Mbour sama papa man la ko denk lolu dama koy wax parce que. Mhm. li na devoir de vérité m'interpelle. absolument. j'ai connu Sonko à travers cette personne. xam nga kon ñaar ñooñu. kon ñom ñaar ay xarit lañ. mais ay xarit. Quand wax loo xam Sénégalais yi jour mhm. en 2003 dans la cité Faisal. aujourd'hui il y' a Fadilou Keita qui est dans le Passif. qui peut être témoin ñun ñaar ñoo doon ànd football foofu suñu petit camp du sport. Mhm. Je me dis que Sonko pour la première fois la salle de gymnastique la génne doon entraîner à la cité Faysal. ki ngeen di wax man la intime Je xam nga lu mhm. Viens je te présente le fonctionnaire le plus intègre du Sénégal. Non, la ko waxee. wallaahi lazim suis ngi sama bàmmeel je te présente Ousmane Sonko le fonctionnaire le plus intègre au Sénégal Mon égard, ko ah sa waay wax ji 19 de mu ne ma noo ko jubee ni kii mosuma ko gis ñoo génnoo ENA wax ma ay qualité yu la ci moom mhm. boobu laa ko téye et pourtant boobu politique ñëwagul Ousmane Sonko inspecteur des impôts il était dans le secteur jamono jooju mu combattre mu ngi pour am mhm. le syndicat des impôts et domaines jamono ji Ablaye Diop moo nekk ministre des finances finances lu ne def nañ ko ko nekk doo fi créé syndicat mu créé syndicat hmm. mais ki ma lay wax boobu il était administrateur civil mu ngi nekkoon avant de devenir magistrat il était administrateur civil